ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew mi ngeen di abonné fii si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam ne le président Macky Sall ayant été en contact avec une personne qui s'est révélée positive à la Covid-19 a subi un test revenu négatif. Toutefois, suivant les recommandations médicales en la matière, le président Macky Sall s'est mis en quarantaine pour une durée de deux semaines à compter de ce mercredi 24 mai. Euh, communiqué euh, signé Seydou Gueye, ministre conseiller en communication du président de la République.